Euh, waxoon naa recteur yi ñu xool ak euh, seen conseil d'administration ñu xool nan la ñuy a reprendre année bi mu nu ñu bàyyi suñu université ñu tëj noonu alors que université nekkul woon ci grève amul woon benn jafe-jafe nit ñi ñu ngi doon jàng euh, yàlla dafa def ne nag ñoom ñëpp daje nañu jël ay ndogal ndogal bi mooy cours yi dañuy reprendre fu ne mais comme

léegi dañuy xool nag fii bu tabaski ñëwaatee mise en œuvre maanaam doxalin bi ñu xool est que dafa am liñ ci war a euh, maanaam saafara dafa am liñ li ñu leen ci war a gunge loolu dinañ ko xool bu tabaski passé. capitaux bi moom joxe naa nag ndigal aussi.

Euh, eno yu ñu doon tabax foofu pare nañ daanaka la ñu wax nag léegi nañu gaaw euh, maanaam équipe ko en tout cas pour étudiants yi mën a duggaat ci eno yu bees yi. enseignement à distance lu lu lu lu am la. Euh, war nañ ko gën a dooleel ñun am nañu ay support télécom. Euh, suñu pays suñu réew nekk na am na aussi kilifa ñi nga ñoo enseignement supérieur jàpp nañ ni euh, a am secteur privé tamit ni euh, enseignement à distance am télé télé télé télé enseignement am e-learning comme ni ñu koy ak feneen ci ci àddina bi parce que mën nga toog Sénégal jàng euh, jël ay module di ko jàng Harvard wala wala wala ay MIT wala ay Oxford euh, jàpp naa ni war na mën a nekk parce que tamit suñu réew euh, tamit doxandeef ci biir télécom ak support yu mel te autorité yi ko am nañu pas-pas boobu jàpp naa ni lu war a mën a nekk la en tout cas ñun def suñu kéem kattan jàpp jàppale leen pour yu ni mel mën a am ci jàmm ak dal